asalaamaaleykum asalaamaaleykum ginnaaw bu ñu leen nuyoo sant leen jaajëfal leen tey votre serviteur Davida génnee nag feneen def casquette am indil leen nag lunette am waaye lépp loo xamante ne rek dama ko def dafa am li tax ñu def ko te li ko tax loolu lañ leen di war a waxtaanee ci kanam ci seen rubrique bi taxaw seetlu tey nag mm, duma ci wet ndax boo leen ma gisee rek am ku ne sama wet muy l'international nit koo xamante ni dama ne. nitee ma gën a neex ci moom personnalité am gën maa neex ci moom waaye tamit également mu am dignité ci savoir fair ba noppi ànd ceeg modestie de son vrai nom Ouzin tey nag <laughs> ah, dina neex dina yëngu ci loo ne. <laughs> sant yàlla bu baax sama ah. sama journaliste bi. waaw gis nga gis nga ñu ngi lay ziar. di dox ci actualité. waaye gis nga actualité occupe une place de choix ci sa émission bi nga xamante ni mi ngi tudd taxaw seetlu. ñu kontaan trop ci loolu waaw ñu ngi koy suivre muy naaj tey ñoo am envie participer. Mhm. ñëw ñu yaatal ñu. Mhm. ñu fas yéene nuyoog euh, mbokk internet yi. Mhm. ñëw ci waxtaan bi. Euh. noonu la ginnaaw bi ñu nuyoo képp koo xamante ne rek sénégalais nga ak sénégalaise. ñu nuyoo leen fi nga xamante ne lañ leen nuyu. muy ci Sénégal nekkuñu Mali nekkuñu Niger ñun ñu ngi Sénégal. kon lépp lu fi am comme actualité rek Sénégal la xewee kon sénégalais yi koy wax sénégalais yi ñuy déglu tey nag du ma wax du ma koy bàyyi rek mu doxal laaj li muy laaj waa yi lu ñu ko jox rek ñu continuer. Mhm. alors balaa ñuy euh, laaj waa régie bu baax a baax mbokk internet ci Dakar Net di kontaan bu baax a baax teew ki nga xamante ni moom mooy euh, Davida l'incontournable laa koy faral di wooye macha allah ak nga xamante ni daf koy faral di def weekend bu jot gis naa ni tamit euh, yéen yéen a ngi ciy gis seen bopp à travers seen i seen i commentaires. alors tey nag sori ci ci waxtaan bi donc dañuy dem xool benn vidéo vidéo boo xamante ni ay nervi la te nervi yi si tournée président Macky Sall bi ñu dem xool vidéo bi ñu ñëwaat léegi léegi ci waxtaan bi alors yéen a ko gisandoo noonu ah Davida ah, je pense que gis nga gis nga vidéo bi muy lu muy lu muy lu doy waar ah. mhm. ay moroom civil di jàpp seeni i moroom civil di leen di leen di leen di leen di leen bafuné laa ko mën a waxee quoi. Mhm. donc yow a nga gisee vidéo bi. xol bu xol bu tàng laa am. nañu mhm. hmm? naan dama am lu ma metti comme ni nga ko waxee ay civil yu koy def seen i moromu civil. ci période bi nga xamante ni Ousseyn ñi ngi wax lii di agression yi. ci période bi ñuy bëgg kilifa yëpp bëgg ci mango ñoom ñëpp mànkoo ngir moom apaisement ci même période boobu ñuy xaar apaisement bu jógee ci njiitu réew mi di président Macky Sall ndax moom moo commencé tournée bi dippee ko tournée économique mais gëm naa te xalaat naa li ma gis nii nduratuma maanaam tournée économique xam nga lu may nduru tournée drame. Hmm, moo ci mujj ndax gis nga ñi ñu dippee des nervis yi mm-hmm. ñu dippee leen de des gros bras mm-hmm. man su fekkoon ni am na lu ma gënal dañ leen di jël ak yóbbu leen bàngoo formé leen formé leen dañ leen di jël yóbbu leen ci toolu Casamance yi ñu bay aussi xanaa xamoon lii soi-disant de nervis yi ngay gis mm-hmm. ñoom ñoo lay koj laajte sa portable sañ-sañ bi ñu am ni ñoom président Macky Sall la ñu àndal sañ-sañ ko raw la ñuy am dugal ko ci seen xel te ñii xool leen xool leen du ñu ay policier ñii du ñu ay gendarme ñii ay nit lañ ñoo xamante ni xam nga lan la ñuy def Ousseyn nekk seen biir kër yi fu foote gën a baaxee ñu jël fu cere gën a baaxee ñu jël entraînement booloo tëdd loolu nag lañuy def defuñu leneen. ma jàpp ni nag ñoom bu ñu demee ba entraîné ba am yenn kattan yi benn wareef la ñu am mooy dem ci arrêté daal seen doole mais li ma jàngat ci nervi yi mooy ñu tekkiwul dara lañ mooy ñi nga xamante ni agression yi ngay gis yépp les nervi ñoo ko def ndax ku nangu ñu jël la ngir nga dóor sa mbo moroomu sénégalais ku nangu ñu jël la ngay dóor sa papa parce que da gis ci vidéo yi li ci gën a metti ay paa yi jàpp di dóor. ay jeunes yoo xamante da dañu leen jàpp di dóor mais kuy dóor sa baay di dóor sa rakk di dóor sa nag sa sa sœur yow tee kii. mais mais mais en fait loolu ma bëggoon a laaj mooy euh, li ci li ci xaw a yéeme ah doon te jaaxal sénégalais yu bari mooy xam nga président Macky Sall dafa waxoon ni moom bëggul gis lu xonk. Mhm. moom lu xonk mënu ko digérer. Mhm. est-ce que lu xonk loolu war na mën a tax sax ñoom nervi yi ñuy bañ boo yëkkatee lu lu xonk ñoom ñu jëw paqueté la. est-ce que ci Macky Sall bëggul lu xonk la rek est-ce que nervi yi sax liñ leen wax ñu ngi koy def est-ce que wax ñu leen rek euh, voilà ñu jël morceau yu xonk yi sans pour autant ñu ñu ñu ñu nangu ñu leen di dóor quoi en fait laa bëgg wax. non président Macky Sall su ne bëggul gis morceau bu xonq hmm. yaa xay si loolu waxum la wax moom waxam la. mais Macky Sall ñun war ñoo toog sax moom muy dugal suñu bopp yi ni bëggul gis morceau bu xonk parce que dañu ne la ñun yow président Macky Sall yow yaay suñu président. tey li nga doon population sénégalaise moo ko def ci yow mu ñoo jël ay carte daal di lay ne hey suñu xaalis a ngi nii ñun dañoo jënd oto bu bees tàkk président Macky ñi nekk ci ginnaaw mën nañoo dawal ñi nekk ci ginnaaw xam nañ yoon wi ñi nekk ci ginnaaw xam nañ intersection yi mais dañoo bëgg nga jël sénégalais yi nekk ci biir oto bi nga wagat wagat leen ba yóbbu leen fi ñu bëgg yaa xay si bu def loolu kay sëñ bi dama ne la su la nee waroo jàdd fii waroo jàdd feneen fa kon président Macky Sall c'est pas lui de dire que ni warul ñoo gis morceau bu xonk ndax dama ne su nit ñi mënut a naqarlu def ko ci seeni marche yi nga xamante ni su dee dañoo bind préfet mu rejeté ko. bu dee préfet dafa rejeté demande yi nga xamante ni mooy autorisation yi ngir ñu def seeni marche bu dee dañu koy rejeté chacun aussi à sa manière de mener lépp loo xamante ni moo di ay action am chacun aussi est libre de pouvoir donc faire propre marche ak sa manière même dans les dans les dans les dans les autres pays nit ñi ba ci seen entreprise yi su dee dafa am lu leen naqar yi ci ñi nga xamante ni mooy seen seen soi-disant boss yi dañuy takk maanaam seen brassard rouge continuer nekk di liggéey. kooku gis nga boos bi bu duggee dina xam ni ñii am na lu leen metti mu def benn benn réunion de concertation pour que laaj leen ana lan ak lan la mais président Macky Sall mënul ñoo ñëw teg benn stress bi bëgguñee ne carrément doo leen fi takk morso bu xonk bëgguma kaa gis Macky qui es-tu mais en fait mais nag euh, tournée bi nag am na am na njëriñaa ah, bu c'est vrai que dinañ ñëwaat ci ci affaire nervi yi ndax foofu euh, point bu am importance la. Mhm. Euh, mais ci tournée gis nañ tamit ñenn ñi naan tournée politique la mais tournée ngi inauguré ay ay hôpital Davida saa waay mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi investir ci ci région bi mi ngi def ay ay conseil des ministres foofu noonu est-ce que gisoon nañu tamit tournée bi ci benn côté am na njëriñ. du ma ne tournée économique la. te bu jàppee ni sax tournée économique la mi ngi nax boppam. ci moment bi nga xamante ni dañu ne le Sénégal c'est le pays le plus endetté ci moment bi nga xamante ni sénégalais yi li mu doon wax Macky Sall li mu doon wax ba récemment ñu gis ko mu jënd am ngandem avion ci xaalis boo xamante ni dama ne ci ban xaalis la te moom mu ne lépp luy oto lépp luy nangam nangam dootuñu jënd yooyu parce que déjà am na loo xamante ni ñoom ñoo gën a yomb wala gën a population moom la gën a soxla tabax hôpital baax na est ci période bi la ko waroon a def. yow boo fi jógee dem ci yeneen i raison yow Sénégal fii y a combien de hôpital yoo xamante ni ñoo ngi fii mm-hmm. yoo xamante ni ñii am nañ ay problème mu machine yu leen di réanimer mm-hmm. ñii am nañ problème mu nangam chaque jour nga dégg ñu ne la diw dee na parce que lan la dañu ko doon césarienne lii daal ko chaque jour nga dégg ñu ne hôpital bi amul ay médicament yow nga jóge fi yor say oto ñaata ci ay gasoil ñaata ci ay essence ñaata ci suñu koppar ñaata ci ay nit nerf yi bu nekk nga fay ko benn vingt xaalis boobu du xaalisu président Macky Sall kon man je vois pas l'importance tournée bii muy def duppee ko tournée économique nañu ne hey tournée bii ñu gis tournée politique la. mais mais ci ci tournée ci politique boobu noonu ngay wax ah. xam nga xam nga nervi yi tamit. bon c'est vrai que ñu ngi ànd ak président Macky mais est-ce que parce que Guy Marius Sagna nee na balaa président Macky Sall di comprendre wala balaa ñenn ñi di comprendre foog ñu sénégalais ñenn ci sénégalais yi rey nervi dama yàlla baal ci kàddu noonu la ko mhm. waxee. foog ñu comprendre lan moo tax affaire bi muy muy demee nii donc fu ma bëgg a waxee mooy est-ce que du jur kaawo par exemple bu dee fii Dakar la góobamu ni jeunes yi dinañ accepter nervi yi di leen torturer comme ni ñuy torturer jeunes yu Fouta yi. mais mais mais euh, si on se rappelle bien euh, Ousin. dafa amoon benn période boo xam ne dañu ne la ku sol yëre tenue tenue policier. te tu n'es pas policier. usurpation de fonction nga def. dañu lay jàpp simbi la. dóor la amande la mais léegi bu ñu gisee ñi nga xamante ne soi-disant des nervis ñoom ñooy ànd ak président Macky Sall ànd ak moom ci cortège am lëkkaloo ak policier yi. jàpp nit ñu di dóor policier bi liggéey bu mu waroon a def jàpp di aar. dootul aar mais day day yebal ñi nga xam te ñooy nervi yi. boo xoolee récemment ci tournée président Macky Sall bi am na période boo xamante ni gis nañ ay nervi yoo xamante ni oto pick-up bi ñu yoroon. ci lañ def seen i casque policier yi kan moo leen fournir casque yooyu. mais mais li xaw a yéeme tamit mooy commandant gendarmerie bi nga xamante ni président Macky Sall daanaka da ko rajee ah daanaka da ko da ko rajee da ko rajee sax laa bëgg a wax. Mm-hmm. Mm-hmm. te 3 mois moo ko dese mu dem mu dem euh, retraite. Mm-hmm. muy lu raaraan ah, si histoire histoire euh, réew mi. donc ñenn ñi sax ñi ngi njort ni moom dafa bañoon. ci waxam dafa ci ci xibaar yi ñu ci am dafa bañoon pour nervi yi topp leen. ci tournée président Macky Sall bi. est-ce que moom est-ce que armée bi nekkul dañu leen tënk. parce que pouvoir de décision yi c' est vrai que ñoom dañuy exécuter rek. Mhm. ministre euh, de la justice moom mooy décider. Mhm. bu décider ni nervi yi dañ leen di ànd euh, ñoom dañuy dañuy dañuy dañuy collaborer dañuy ànd ak ñoom est ce que kon mbir mi du si ministre de la justice déjà. je me dis tout le temps que ni président Macky Sall il n' est pas intelligent il est tout simplement malin mhm. malin au président de la république mooy dafa comprendre les sénégalais xam na fi mu leen di jaar bu demee tey ba nga xamante ni. un commandant wala lu mu ci mënti doon yow joxuñu la sañ-sañu di wax sa doléance ba ci ay conseillers président Macky Sall gis nañ ko fi amul man je me dis est-ce que am na ay conseillers parce que ñi ñuy gis souvent ñuy toog di wax pour wax wax wax ñooñu boo xoolee loolu ñu naan mëkkal te ni la képp koo xamante ni bokk nga ci résime bi sa jàmm mooy nga noppi ànd ak président Macky Sall su fekkee ni yow da ngaa nekk tribunal. amuloo sañ-sañ di bum ak di buum yi su fekkee ne dangaa nekk ci armée bi amuloo di bum ak di bum yi moom li mu bëgg ak fa mu lay xooloo foofu ngay xool donc moom bu ñu ko rajee moog yàlla la li tax mu wax loolu àqulaay taalaam la taxawee c'est bu ñu ko rajee wàcc na wàccoon naa ak président Macky Sall kon keneen koo xamante ni da ñëw président Macky Sall tamit nangul nga nangul ko li mu bëgg c'est parce que da topp ci ay waawam mais soo dul topp ci waawam da lay donc ki ñu rajee man ànd naa ci ñu rajo ko c'est vrai parce que waxal yàlla la waxal. waaye waxul ak pour président Macky Sall te ku comprendre que nii Macky Sall mii troisième mandat du ko def ndax dañ ko fiy teree constitution bi permettre ko ko. boo xamee nit kat tôt ou tard président Macky Sall day dem am na yenn dogal yoo xam ne su la ko waxee jël ko doo ko jël. loolu nag la xam moo tax ma def ko. Mm-hmm. mais capitaine Touré capitaine Touré aussi gis nañ ne dañu ko wàcc ba léegi simple simple soldat la. Mm-hmm. et que d'ailleurs moom sax li mu wax journaliste mooy euh, nit ki lépp lu mu am si dundam rek parce que yàlla daf ko tracé woon noonu mbiri capitaine Touré noo ko gisee ak rajo bi ñu ko rajo. non li ma ko gisee lenn la danga nga ne dañu ko rajo ba mu nekk simple. Mm-hmm. mais simple day tax nga dund simplicité. simplicité bu mu dund. mais ci le cas de moo taxoon ñu ñu ñu yóbbu ko tóol ko. bi ñu ko tóoree dem nañ ba gis ni que nii kii tóor ko rek même bu jeexalee li nga xamante ne mooy penam après dañu ko rajee mais ana ki ki ki taxul ñu raje ko du Ousmane Sonko moom raje wu ko woon fonction yi mu yoroon ana Sonko tey du tey la a bari doole Ousseyn ma wax la benn affaire secret bu ndaw laa wax gis nga sénégalais bu ñu ko jàppee ab dof doful sénégalais moo gën a bañ kuy néewal doole moromu sénégalais te bu ñu foogee nii ñoom seen stratégie bi ñu def que bu ñu la rajee rek. mooy tilimal nañ sa der jàppal ni jour boobu lay gën a am doole ñun dañ koy encourager moom capitaine te xam ne ni fii suñu la fi rajee ci dëgg. nekkatul commandant léegi simple soldat. déggoo ma de suñu la fi rajee ci dëgg. Mm-hmm. yàlla fal la jox lay grade. Mm-hmm. fële yu gën grade yi nga xamante ne fii nga am ndax damay leen di fàtte di leen di rappeler mm-hmm. fii ak koo mën a doon. sukkandiku ci say R plus ba mu jaral la nga fàtte R moins na la leer ni tôt ou tard chaque instant chaque moment borom R moins dina la fekk yebal ay soldaaram ñu jël la daxa daxa condamné la ci suuf si. alors ba léegi yéen a ngi ci seen émission euh, taxaw seetlu ah taxaw seetlu gis nga Davida ah, toujours ay chronique am nii la euh, xol lay waxee nii la xel lay waxee soo amee dégg-dégg di nga ko dégg soo amul dégg-dégg tamit également euh, doo ko dégg alors ñu ñëw si mbir Ousmane Sonko Ousmane Sonko gis nañ ni def na benn point de presse ah, démb donc di ñëwaat ci moom tournée bi nga xamante ni daf koy waajal. Mm. tournée tudd nemmeeku tour alors déjà tournée bi noo ko gisee. bon li may wax rek làmb ji moom làmb la ku nekk ak na ngay na ngay bàqoo ku ci nekk ak nañ lay sottee saa saafara ku ci nekk yaa xool nay toje sa sa bopp jën ndax laataa Sonko defe naa Bougane Gueye génn na ne tubu tànk. tubu tànk tubu tànk c'est-à-dire fu Macky jaar moom it bu doon daa xeer moom mu teg fa morso bu xonk wan ni ko ne même xeer bi sax mer na mm-hmm. loolu provocation laa ko mën a jàppee mm-hmm. donte nag géew bi ku nekk sañ nga bëri. Mm-hmm. mais bu dee président Macky Sall dafa jël calendrier am mu ne dafa prévoir li nga xamante ni mooy tournée te nii la ko nar a defee ak nii ak nii kon du woon yoon. Bougane Gueye topp ci ginnaawam. fu président Macky Sall gasee mu loolu provocation la. te loolu. mais est-ce que c'est de bonne guerre parce que c'est la politique quand même parce que boo xoolee élection élection sax souvent buy ñëw da gis euh, candidat bi bu dugg jugee ci dëkk bi rek. day dem rek si lendemain bi beneen candidat ñëw est-ce que gisoon ni loolu genre suite logique la rek ci mbiri élection yi ñuy waajal élection locale. mais c'était pas quelque chose boo xam te ne ñoom dañ ko prévoir pour que ñoom fu président Macky Sall demee ñu ñu ñu kii. du woon loolu président Macky Sall dafa dafa dafa dafa jël calendrier am mu ne fas yéene def tournée ak lii ak lii ak lii. mais bu ñu gisee ay opposants ku ci mel ne Ousmane Sonko ku ci mel ne Bougane Gueye Dany bu ñu defee loolu li ñuy indi rek mooy bi. da ngay da nekk genre tension. mais tension boobu moo fi am parce que euh, boo xoolee kilifa diine yëpp. dañu ne woon Sénégal nañu ñëpp am apaisement na ñëpp ñaan mais imagine toi tey bu Sonko jaaree fii Bougane Gueye jaar fële Macky Sall jaar fee ku ci nekk nga yor say nerf yi seen i nerf yi di jot gis nañ ko fi ay bal di choqué ko fu ne ci camp président Macky Sall la camp Bougane Gueye la wala camp Sonko mii di préparé di ñëw la parce que da lay leer ni Sonko mii moom kese du ànd. dina am ay nervi yu ko ah, topp parce que parce que boo nga ko déggee démb nu mu waxee si point de presse ça veut tout simplement dire que ni moom dina waajal boppam parce que moom du xaar ñuy dal si kawam moom loolu wax du xaar ñuy dal si kawam muy doog a di. di di ak yooyu waaw donc. moom dafay préparer yoonam ba képp fu mu dem parce que moom nee na ci ay ci wax nañ ko wax nañ ko ñoom ñoom wax Pastef ci xibaar ni leen euh, waaye gars yi ñu ngi préparé fépp foo leen mën dem ñu salteel seen seen seen yoon donc moom du xaar ba gars yi di dal si kawam muy de est ce que loolu du indi benn. mooy mooy mooy li ma lay wax mooy mooy confrontation boobu nag xoolal du dara. ñi ci doon perdant yi ñoo ci nara doon perdant yi xam nga mooy ñan mooy jeunes yoo xamante ni sont pas di tout conscients gis nga bu fekkee ni jeunes yi conscients nañ bu baax dañuy xam ni président Macky Sall à tout moment mun na dem kër Sonko toog fa waxtaan ak moom président Macky Sall ku leen du jël téléphone di woo di woo Bougane Gueye kan moo leen ne président Macky Sall du woo Ousmane Sonko. politiciens yi ngay gis ñuy rayante ci plateau yi bu ñu paree xoolal bu ñu wàccee dañuy dañuy saafonte joxante rendez-vous seen kër yi nekk ci xoolal restaurant yu gën a baax di lekk waaye ki nga xamante ni le sénégalais lam daal muy nangu moom ci boppam ñu koy dugal di koy def lañoo moom sacrifice bi ci cinq mille francs bu ñu lay jox wala dix mille francs bi ngir nga nekk ci seen oto yi jël ci jakarta yi ñu leen di torturer di leen di rey ba pare li ma ci gën xam nga mooy lan mhm, moment bi nga xamante ni xale yi ñu ngi génn ci seen kër yi di ànd ak soi-disant les politiciens seen ndey duñ yëg seen i baay duñ yëg mm-hmm. ñi nga xamante ni ñoo ciy dee ñoo ko yóbbee seen i bopp parce que ñoo fa dem te ñay topp ci cortège yi convoi yi ñi ciy topp ñëpp bu doon cent pour cent la jàppal ni xoolal quatre-vingt-dix pour cent yëpp amuñu lu ñuy voté carte bi amuñu ko. Mm-hmm. mais mais defe xam nga euh, Sonko dafa am dafa am lu ñëw dafa dafa ñëw. Mm-hmm. am benn espoir buy incarné espoir bu xale yi jeunes yi am si moom. Mm-hmm. donc et dañuy faral di wax naan rapport de force la Macky Sall gëm ñoom dañ koy faral di wax. Mm-hmm. Macky Sall gëmul ay ay ay layam layam yi dafa gëm wàcc sur le terrain est-ce que gisoo ni tamit. révolution boo gis rek dafa am ñu koy porté. est que gisoon ni dafa jot jamono bi ñu toll nii. ak fi ñu jëm gars yi wàcc ci terrain bi xeex xeex bi pour mën a am lu ñu bëgg. mais avec la manière avec la manière. mais ku la dóor da nga war a fay wala mais mais mais Sonko kan ma ko dóor. mais doo xaar ba mu dóor la damay laaj danga nga ne ku la dóor fayu. Mhm. su dee nit ko dóoragul nga fayu nag. Mhm. yaa tooñ provocation la kon Sonko daa waroon xaar ndax Sonko. bu bu mais date bi ñëwagul des na des na des waaw mais xam nga ku la alerté yaa nga waajal bu doon yi jor nañu ni jaas yi ñu ngi koy daas mhm. voilà président Macky Sall bii dëkk bi tàngee kilifa diina yëpp wax nañ mu bañ. sonko bi ñu ko waxee dafa nangu la mu nangu ba dem ci sëñ Muntaxa dem ko ci yeneen i kër ki fi dina yi boobu ba tey mu ne woon tekk na continuer ci tekkam googu ndax tekk lu mu la mayul bëtti bëtti mënu la ko may doo ma ne kon stratégie Macky la bu accepté bàyyi kii di sonko ak Bougane Gueye Dany ñu ñëw di xëpp xëpp ci cereem suuf stratégie la ndax bu boobaa dañaa président Macky Sall mi ngi doon doxal ni mu waroon a doxalee ñi ko ñëw fekk ci ci làmp ji kay mooy sonko ak Bougane Gueye Dany donc ñoom ils seront les Macky Sall mooy li ma lay wax. même même même Bougane ah gis nga même même sax boo xoolee si tournée bi ñu doon def côté Fouta. Mhm. Euh, ñu fay gis ni moom bi mu fa ñëwee. Mhm. am na ay ne dañu doon wax Macky euh, leen di leen di saafonte ak ñoom di leen tàllal loxo. Mhm. mais xale yi yamuñu euh, te xam naa ne bu dee bu Sonko. le convoi bi ëppee doole noonu. donc man dama ragal ah man en tant que sénégalais lambda dama ragal pour affaire yi tourner ci côté boobu ay jàppante yoo xamante ni day jur ay ay ay décès wala dara quoi. loolu li koy dindi lenn la. Hmm. mooy ku ci bàyyi. Hmm. di ci yaay jëlal say mesures c'est-à-dire ngay woo say doom hmm. ne leen ñii ay politiciens lañu yéen ñi nga xamante ni xëy na boo leen añee doo leen reer boo leen reeree doo leen ndékki na ngeen xam li leen war te ngeen toog ci kër gi ba leen ñu tourner seeni i tournée ba leen ñu tourner seen i tournée te ngeen toog ci kër ndax toog ci kër gi mooy tax nga mucc mm-hmm. bu demee nag ba élection yi jot ngeen jël seen carte ci ñu ko am ngeen dem ci urne yi ngeen voté dolliwaat seen biir kër yi gis nga dama ne ku doxal bugg mucc di nga mucc kuy seet nag safaan ba mu këpp ci yow président Macky Sall bu dëkk bi naree tàng France da koy jël yóbbu ko Ousmane Sonko bu dëkk bi naree tàng moo xam Casamance dañ koy jël yóbbu ko Bougane Gueye moom bu naree tàng waa Touba Mbacké Gueye mu nañ ko jël yóbbu ko man daal Davida loolu laa xam ndax am ma doole samay at nag dafa néew may xam fu ma yem jours yi ma jël sama carte dem voté ji Ouzin Mhm. alors euh, bëggoon nañ bëggoon nañ euh, waxtaan si yeneen points yi différents mais bon comme comme ni ñu ko waxee rek ah si sa émission bi. Mhm. taxaw seetlu ci actualité donc kese képp mhm. la ñuy waxtaane donc xam naa man maay man maay tëj rek. Euh, bàyyi la nga nga nga nga tëj tamit. après voilà ñu jox rendez-vous beneen yoon. mais en tout cas ça a été un plaisir quand même de vous servir ànd ak nga xamante moom mooy Davida l'incontournable le chroniqueur l'exception le différent di bég bu baax a baax ci ñëw participer ci émission bi nga xamante ni daf koy def chaque week-end fii ci Dakar Net di leen jox rendez-vous beneen yoon. jaajëf Davida maa ngi bëggee. kontaan la ak mbégte saa su nekk ma feggoo ak moom te nee naa saa su nekk ni lay demee fii ci seen rubrique taxaw seetlu Ouzin day ñëw Davida ñëw ñu xool lépp luy actualité daal di leen koy tegal ci visibilité ak égalité bu boobaa saa su nekk ñu wane ni Sénégal am nañ identité te que damay wax naan identité bi nag dëgg-dëgg mooy yéen ñi may déglu te nekk ci suuf di commenter eh, na ngeen yàlla defal jàmm te ngeen di continuer di wéy di abonné ci seen chaîne bi di Dakar <laughs>